na ah, ah, lépp loo ñu yaakaar ne dinañ ko def pour xañ ñu ko dinañ ko soppi ba nga xam ne maanaam ah, faiblesse boobu day mujjee nekk force moo tax mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen fi teew waaye mbokk askanu Sénégal waaye mbokk aji bëgg réew yi ñu leen di wax les patriotes ñun waa coalition Sonko président dañu am mbégte ak yëg-yëg bu mag ngir tabb kii di Ousmane Sonko mu doon candidat coalition Sonko président ci eh, jongante yi ñu daj natt nañu bu baax nag dayo bi nga xam ne lii moom la am ak li muy màndargaal ci askanu Sénégal waaye tamit tegoo nañu ko ci suñuy mbagg wane ne kii nga xam ne mooy président Ousmane Sonko di panafricain ñëpp xam na ni mu mel ci Afrique ndax dimension weesu na Sénégal mën naa ne weesu na Afrique te tey ku gis dimension bi dayoom moom fi mu toll ak candidature fi mu yegg ci àdduna bi xëy na kenn lañ ko ci mën a méngalee koo xam ne yeggoon na foofu mii Barack Obama mu nekk patriote convaincu maanaam aji bëgg réew bu mat sëkk waaye mu nekk ki nga xam ne mooy mandargaal Afrique gi nga xam ne dañ ko nalawal bu yàgg te Afrique googu yeewu fas naa jël ëllëgam téye ko dox jëm ca kanam bokk ci continent yi ñu gën a naw yi gën a ñoŋ ci àdduna bi kooku may bëgg a wax mooy le candidat Ousmane Sonko ñi ko gën a jege di ko wooyee PROS kon nag ñun ci fidélité honnêteté sincérité ak loyauté moo tax tey ñu jàpp ne xeex bii ñuy xeex ngir Sénégal doon Sénégal gu jóg Sénégal gu gën Sénégal gu ñoŋ Sénégal gu raw ay maasam doon na xeex boo xam ne mënu ci dellu ginnaaw benn yoon te mënuñu ci yox-yoxi ah xeex boobu nag suñu koy def suñu xel mënul ñàkk dem ci ñi nga xam ne seen bakkan dafa rot ci yoon wi ndax bañu ko tàmbalee ba léegi te ñoom Mariama Sagna ba fii ñu yegg si tey la ci rot ëpp na juróom benn fukki nit ñii ci événement mars 2021 ñii ci événement juin ak euh, ak ak ak événement euh, juin 2022 ak événement juin 2023 ah ñooñu nag dañuy xalaat seen ay njaboot seeni wayjur seeni soxna seeni rakk waaye di leen biral ne du ñu leen mës a fàtte te xeex boobu ñu doon xeex ba loolu fekk leen ci nañ gëm ne ñun dinañ ko wéyal ba am ci ndam ngir Sénégal doon Sénégalu dëgg ngir Sénégal doon Sénégal goo xam ne li ñëpp bokk ñëpp jot ci suñu xel mënul ñàkk dem ci lu ëpp junni nit yi nga xam ne dañ leen a nëbb jant bi ñu nekk ci kaso yi yi nga xam ne nguur gi moo leen fa dugal ci ak jaay doole waaye ci gëm gu ñu gëm seen réew gëm ko benn projet te ñooñu ñu mën cee lim kii nga xam ne moom lañuy ñuy tabb tey muy suñu candidat di président Ousmane Sonko ak mbooleem ñi mu àndal ah wax fa dëgg yàlla nag li nga xam ne fas yéene nañ koo def mooy génne Sénégal ci guuta gi mu nekk waaye génne Sénégal ci loxo yi ko ŋànk ruut ko ci suuf ji ngir bañ mu jëm kanam ñoo xam ne seen inter képp moo leen fi nekkal ba tax nañu ñu tabb seen benn candidat boo xamante ne nii dañ cee bëgg a jaar forcé wéy ngir di noot sénégalais yi ngir confisquer votu sénégalais yi maanaam ngir nangu bëgg-bëggu sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a tànn kenn koo xam ne jàpp nañ ne bu ñëwee moom mooy delloowaat Sénégal maanaam li wax jot sa réew mooy tax nit ñi jotaat seen réew mooy tax nit ñi mën a jot ci li ñëpp bokk loolu nag euh, bu ñu koy def ba tax ñi tabb suñu candidat bi dañu koy wéer ci li nga xamante ne nii mooy constitution wu Sénégal mi ndayi sart réew mi nga xam ne moo tënk lépp ndax constitution boobu ci poñam bi ñuy wax 4 ak 29 maanaam article 4 ak article 29 Euh, ak L 120 bu constitution bi ak L 121 bu code électoral bi moom moo wax naka la ñuy tabbee candidat te ñun ñu tànn ci bi nga xam ne coalition bu ëmb mbootaay gu ëmb ay kuréelu politique ñoom ñoo koy tab ngir mën a nekk président de la république ah waaye yamu ñu ci loolu parce que dañu jàpp ne président bi dafa war a nekk ku légitime maanaam dafa war a nekk koo xam ne nit ñi jox nañ ko bopp ba pare nangul ko moo tax ah ñu jàpp ne euh, euh, loolu di cérémonie d'investiture bi dañ ko war a def ci maanaam yamale waaye dañ ko war a def ci anam yoo xamante ne nii kooku dinañ xam ne kuy respecter état de droit la waaye ki respecter suñu ay institution la waaye tamit dina gis am gis-gis bu soree sori ngir suñu ëllëgu réew mbokk yi président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne parti bi mu bokk di Pastef ñi naan ex Pastef dañu ko investiroon balaa dara di xew te ba ñu koy investir maanaam ba ñu koy tànn mu doon suñu candidat moom képp moo nekkoon candidat keneen yëkkatiwul loxoom waaye yamuñu ci loolu ndax ngir bëgg mu nekk candidat boo xamante ne ni lépp dafay jaar yoon te mu nekk candidat boo xamante ne ni am na légitimité dañu wax kuréel gi nga xam ne moom mooy ARP di haute autorité de régulation du parti ku ñuy wax euh, monsieur Ngouda Mboup di constitutionnaliste jiite ko ñu defal ñu benn investiture boo xamante ne nii day suivre les textes du parti ah bi ñu ko defee consulter mbooleem responsable du parti la ñu ca doon xaar dañ cee gis lu ko ëpp ndax lu ëpp junni ak juróom benni téeméer ak juróom benni responsable lu parti bi ñëpp dañu ne d'accord nañu ngir président Ousmane Sonko doon mbër ci élection yii di ñëw di 2024 résultat yooyu la nga xam ne am nañ ko mu koy woon lool lool suñu njort moo doon wane ne kii di président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla lu koy teree nekk candidat yàlla sàkk ko ci mim réew. bañ ginnaaw ba ñu ko defee candidat waaye sénégalais yi defal ko seen bopp candidat dama bëggoon rekk wax ñaar fukk ak juróom-ñeent kuréeli politique yi nga xam ne ñoom ñoo décidé balaa dara xew ndax biir nañu ne ay fukki fukki kuréelu politique dinañ ñëw balaa yàgg dara. ñoom ñoom ñoo xaatim lii wax ne tànn nañu kii di président Ousmane Sonko mu doon seen mbër ci jongante yi ñu dëjmal muy le 25 février 2024 ñu mën cee jiital kuréel gu ñuy wax mouvement pour une citoyenneté engagé àndu nawle bi nga xam ne euh, comme dañ fi am ay titres yu bees kii di Mamadou Lamine Diante di ex candidat moom moo ko jiite am na kuréel gu ñuy wax ànd sàmm sama réew ànd sama réew muy ANSAR ku ñuy wax Momar Ndiaye moo ko jiite am na mouvement pour la renaissance républicaine di m 2 kii ñuy wax nu fay moom moo ko jiite am na manko ci dëgg nga xam ne El Hadji moo ko jiite am na APJS ñu koy wax alliance patriotique pour la justice et la solidarité nga xam ne Ousmane Diouf moo ko jiite am na force citoyenne bi nga xam ne la Lyon Maïmouna Bousso moo ko jiite Sénégal en tête Sénégal ca kanam euh, Mouhamadou Moustapha Mbaba Guirassy yoonu askan wi doyen Madiaye Mbodj mouvement de la réforme pour le développement social di MRDS nga xam ne Mohamed Sall moo fi taxawoon léegi nii di wax bokk ci ñi ko jiite ànd ceeg Bara Diouf euh, coalition le peuple l'homme du peuple nga xam ne moom mooy dàmbooj jiite ko moom dafa muus nag mu tànn coalition le peuple maanaam moom dafa jël askan wi yëpp ne moom moo daf ko def coalition mooy coalition am waaw dafa mbong lool macha allah. ah Sénégal na fa di ah, maître Mamay Diokou am na tamit cadre de réflexion pour un développement intégral nga xam ne professeur Amidou Dat moo ko jiite am na front national bu wuuteeg front national bi ñu xam nga xam ne Ali moo ko jiite am na RPS di maître Abdinar Ndiaye am na UFD Union pour le fédéralisme et la démocratie bu professeur docteur Mohamed Tete Diédhiou am na wareef wi nga xam ne Seydou Guissé Sall moo ko jiite am na bi nga xamante ne nii mooy paas nga xam ne paas nga xam ne euh, Serigne Gueye moo ko jiite parti conservateur du Sénégal bu euh, Aliou Cissé ñoom grand mouvement citoyen nga xam ne Njaga Njaay la moom tey sax mu ngi amal foofu benn événement bu am solo bëggoon ñu teew ci waaye ni mu fa demee la am na euh, farlu nga xam ne baaraloo jot sa réew di un allié de première heure bu Serigne Bassirou Mbacké union des forces patriotiques bu doyen ma soxna Kane waaye ci biir dafa am aussi comme ex Pastef dafa am dafa am ay ex candidat te mën nañ ci lim kii di Birame Souleye Diop bokk ci candidat yi nga xam ne dañoo renoncé ngir jàppale candidature président Ousmane Sonko am na gi guy comme guy lañ koy wooyee guy Marius Sagna di ex candidat am na Abbas Fall di ex candidat beneen ex candidat bi moom jarul lim waaw El Malick lañ koy wax mais ci ñi nga xam ne signataire daf ci am koo xam ne mënu ci woon ñàkk bokk muy le mandataire de l'année wala du siècle ñu koy wax euh, tonton Ayib <laughs> ñii mooy ñi nga xamante ne nii officiellement dañoo taxawal coalition bi di Sonko président 2024 désigné kii di président Ousmane Sonko mu nekk euh, seen mbër ci jongante yii di ñëw te ngeen xam ni président Ousmane Sonko comme ni ko euh, euh, article 1 bi waxee fii ci lii nga xam ne moom mooy PV bi mooy monsieur Ousmane Sonko mi nga xam ne mi ngi judd ci 15 juillet 1974 ca Thiès nekk sénégalais xaqan amul beneen nationalité waaye tamit euh, nekk ki nga xam ne mu ngi am ay àq ak fam dara manqué wu ci moom la ñu déclaré officiellement candidat ci euh, élection yi ñu dëjmal ah lii nga xam ne mooy euh, këyit bi nga xam ne tënk nañu ko mooy mandargaal investiture bi ah dinañ ko dëxëñ ci benn PV boo xamante ne ni candidat yépp a koy signé su ko defee dinañ ko tas ba ñëpp gis ko donc mbokk yi tey ci bés bi mujj ci atum 2023 31 décembre 2023 ah ci lañu ñëw ngir fësal leen lii nga xam ne mooy mandargaal ne président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu matalee lépp li ñu ko laaj incha allahu rabbi dina dem ci élection yi euh, te am nañu yaqin ne bu ci demee premier tour ñu làbbali gars yi sànni karawaas bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen jaajëfal bu baax baax jërë ngeen jëf euh, jërëjëf El Malick ci kàddu yi nga xam ni biral na ko mu di texte bi nga xam ni moo di tabb kii di le candidat euh, Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président 2024 mu ñëw ci wàllu wolof bi dañuy dugg ci euh, wàllu français bi ànd ko ak ki nga xam ni moo di euh, monsieur Moustapha Mbaba Guirassy jiite parti bi nga xam ni moo di Sénégal en tête donc ñu koy woo ngir mu ñëw def parti français bi. chers concitoyens, chers patriotes, je commencerai déjà par euh, souhaiter au peuple sénégalais un nouvel an de 2024 tout simplement merveilleux. Une année faite de paix, faite de bonheur, une année pour le Sénégal, un Sénégal de prospérité, une année pour un envol du Sénégal, et plus jamais que le Sénégal ne vive ce qu'il a connu ces dernières années. Chers compatriotes, il s'agit surtout de parler de notre responsabilité en tant que citoyen. Le Sénégal a vécu, vécu des moments extrêmement difficiles. Et nous sommes un peuple de croyants, musulmans comme chrétiens. Quand on pose la question du qui, le quoi, le comment, Généralement, nous avons les bonnes réponses. Mais le pourquoi des choses, souvent nous sommes déconnectés à cette grande réalité. Pourquoi? Et il est important dans la marche d'une nation, de temps en temps, de s'arrêter et de se poser cette grande question du sens des choses. Et là, je me reconnecte à la grande question de la responsabilité, notre responsabilité. La vérité ne peut pas être une vérité exclusive. Elle ne peut être qu'essentielle. Ce n'est pas la vérité de l'opposition, la vérité de la majorité. La vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Et parlant de notre responsabilité, parlant des acteurs politiques que nous sommes, lorsqu'on considère la souffrance de la jeunesse, lorsqu'on considère la souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries. Lorsqu'on considère la souffrance des étudiants, l'immigration, j'en passe, il est tout simplement important à partir de là de se poser cette grande question du pourquoi et surtout de notre responsabilité, le sens de la responsabilité. Chers compatriotes, ce qui se passe est tout simplement grave. Et quand on cesse de vivre cette empathie avec ceux qui souffrent, on cesse de donner du sens à la politique. L'injustice a pris des proportions démesurées. L'état de notre démocratie est arrivé à un niveau extrêmement bas en Afrique et dans le monde. Et si nous devons continuer ainsi, au-delà de ces élections ou de cette élection, ce qui attend le Sénégal n'augure rien de bon. Chers compatriotes, en revenant encore une fois sur cette grande question de la responsabilité, nous sommes tous interpellés. L'heure est grave, comme on dit, Et le contexte actuel appelle chacun de nous, la responsabilité de chacun de nous, un engagement extrêmement profond, une solidarité, une mobilisation pour sauver la nation, sauver le pays. Toutes les choses sont appelées à disparaître sauf la face d'Allah. Et en tant que croyant, je dois donner simplement un sens à ma vie et à notre vie. J'aime bien quand je parle de politique. Je refuse d'enfermer la politique dans une sphère tout simplement de sachants, de politiciens, encore une fois, en la déconnectant de l'essentiel. Je suis, je viens d'un peuple de croyants. Nous devons accompagner ceux qui souffrent. Nous devons transformer notre nation. Nous devons aider les jeunes. Nous devons mettre en avant l'éducation. Nous devons mettre en avant la démocratie, ce qui a permis au Sénégal d'arriver là où il est en ce moment, ce qui a permis au Sénégal d'amener le président actuel à la tête de ce pays. Si nous devons perdre ce legs, chers compatriotes, cela appelle de nous, de chacun de nous, un sursaut, une remobilisation et encore une fois que ce ne soit pas une affaire exclusive de l'opposition, encore moins d'une coalition. Lorsque Moussa, alayhi salam, a été appelé sur la vallée de Toua, c'était pour recevoir une mission extrêmement importante et qui ressemble étrangement à celle-là que nous tous, nous assumons, nous devons assumer. Quand Dieu lui dit, Moussa, va vers Firaona, parce qu'il a outrepassé les limites. Je pense qu'il y a une étrange ressemblance entre cette mission-là qui nous est confiée, et particulièrement confiée à notre camarade le président Ousmane Sonko, Parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui a outrepassé les limites. Mais la mission est la même. Ce n'était pas une mission pour aller prier, pour faire du chapelet. C'était une mission pour libérer un peuple qui souffrait, où il n'y avait plus de démocratie, où il y avait de l'injustice. Je le rappelle parce que nous sommes un peuple croyant. Il faut bien comprendre et remettre les choses dans leur contexte, l'ancrage qu'il faut. pour donner la puissance à nous, ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas simplement d'élections pour élire un président, il s'agit encore une fois d'une nation, d'un peuple et de la transformation donc sociale de ce pays-là. La responsabilité est tellement importante, encore une fois, que nous devons, nous politiques et le peuple qui nous suit en ce moment, au moment de, ce, de cette investiture, considérer la gravité de la situation, considérer l'importance de l'engagement de chaque citoyen, de chaque citoyen, et en faire une affaire personnelle, en faire une affaire de vie, un combat de pour cette raison que 29 formations politiques, libres dans leurs décisions, libres dans leur façon de penser, se sont retrouvés pour investir ce jour-ci quelqu'un de très spécial, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko